naam am en ci sa bokk jullit loolu feebar la xam nga yaram day feebar yaram day feebar des fois bopp bi tàng parce que bopp bi moo feebar des fois bii bay métti mais xol aussi day feebar dafa mën ci dee amradul qulub les maladies du cœur Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mooy le savant en islam bi ci gën a bind gën cee yaatal ci li ñuy tuddee lee maladi du kër mooy feebar xol yi bind na ci yaatal ci téeram yu bëri kitaabul fawaid tariqul hijratayni euh, téere yu bëri da cee bind détail ci almustaquuna lil janna ak yeneen ak yeneen euh, xol dafay feebar te xol li koy feebar li tax muy feebar ay mbir la dafa am melokaan yoo xam ne ay jikko yoo xam ne su nekkee ci nit ki li muy tekki mooy intérieurement waa ji dafa am problème moo tax ngay gis yi ci kaw nit koo gis mu am orgueil rëy te kabur mooy xol bi moo am problème ku sa xol set wecc sa xol set amul benn problème doo am orgueil orgueil buy feeñ ci biir ci xol bi leneen ci xol bi moo gën a garaw parce que xol bi lu bëree fa nekk tuuti mooy feeñ nit koo gis mu rëy mooy xamal ne rëy gi dafa ancré wu ci moom ci biir xolam mais day day génnee tuuti des fois rek mu génnee tuuti mais dafa rëy ba fu rëy yem moo tax feebaru rëy baaxul feebaru iñaan soo iñaanee doo yéene nit ñi jàmm doo leen yéene lu baax da ngay am rancune da ngay am haine jëmale ci nit ñi yonente bi alayhi salaam doon ci muslu alquran digal ñu ci muslu ci suratul falaq min sharri hasidin iza hasad soxor nit ki da koy moytu siis nit ki da koy moytu bañ ku la ëppale bañ ku la raw nit ki da koy moytu nga xam ni kenn ku nekk li nga war a am ngay am yàlla mooy séddale yàlla moo jox lii kii moo ma jox lii moo def ma ëppale kii ci ëppale ma ainsi suite dund gi noonu la doomu aadama yëpp mënuñu yem diversification bobu am ci nit ñi ci walu xam-xam ci walu alal ci walu wergu yaram ci walu domaine bu nek suñu borom moko bëggé bëggee yalla la sobé noonu yalla mo programmé noonu yow ya ko programmé légui da ngay am qana da ngay doylu yow li yalla yàlla na la doy li yalla sédd keneen nangul ko bu ko ko iñaane bu ko ci six bu ko soxalé su ko défé xol bi su sété ci feebar yoyu nit ki da fay ëmbël jamm ay moromu julitam mais su féké bëggo ko la raw boy jang ko la raw sax nga yéné ko yalla na dé ku la raw ci concours nga ne yalla na accidenté wala yalla na torox ku la ëppale alal nga ne yalla na gawa dé légui limi téki muy yow iñaan gi nek sa xol rancune gi moy bugo ku la ëppale te nit so bëggoon ku la ëppale da ngay sonn mo ni mo doon expliquer dem ci sénégalais yi bugguñu sax ku len raw ci jaamu yàlla bugguñu sax ku len raw ci jaamu yalla boy julli julli yu bari da ngay len di gêné ñu commencé commencé la iñaan ngay jaane yalla gën ragal yalla yaa ñu dàq julli yaa ñu gën a jullite gënoo fi jullite kenn bo julli té dér julli rek c'est simple léegi febar xol yoy nit ki na ci raxas xolam bu ci raxasee xolam alhamdullilah day nek nit ku jup nit ku bax nit du am dara bam iñane ko ko nit du ñak dara bam ne ñaw xamoon naa ko kay affaire bi kay xamoon na ne foog bu dal ko xamoko won xamoko won fen daf ko dal nga do ko xam kon yoyu nit ki na ci raxas xolam bu ci raxasee xolam rek alhamdullilah mais fi ak mi ngi bañ ko ko eppele ko perdre mu contante ci ku ko ëppale mu iñaan ci léegi xol boobu moo lay yóbbee léegi doo bëggal nit ñi lu baax te yonent bi alayhi salaam dafa wax ni laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsi kenn ci yéen gëm yàllaam du mën a mat nekk lu complet tant yow li nga bëggal sa bopp bëggaloo ko sa mbokku jullit xadis bi foofu la yem mais romb na foofu dañ ciy déggee ne aussi tant li nga bañal sa bopp bañaloo ko sa mbokku jullit li nga bañal sa bopp dang koy bañal sa mbokku julit li nga bëggal sa bopp dang koy bëggal sa mbokku julit mais loolu moy man tuuqul ba dafa am lu tuddé mafhum mafhum bi moy li nga bañal sa bopp ci dang koy bañal sa mbokku jëlit allahu taala alam ñu ñooñu moom ay ay cinéma la ay cinéma la man yaakaar naa amna na am na ñu ma ci dajaloon waaye yaakaar naa xam nga dafa am loo xam ni doo sori naan ko ay aaya ki xadis man alxuraan kese laay référé léegi dama naan la ubbil alxuraan bi nga ubbi alxuraan bi boo jàngee faatiha ba mu jeex wala daalin amin man saar nga jëm baqara ah léegi baqara lu ko ubbi lan moo ubbi baqara alif laam léegi est-ce que nekkul alam noo xamee ne alif miim la Ah, alif laam mim boobu jàng bi jàng bi fan la jóge kan moo ñu jàngal ne alif laam mim la du alam du alam parce que dañ def rek ay lettres kenn maasu ko alif laam mim est-ce que du alam comme alam tara lan moo kan moo wax ne alif laam mim la kan moo ko wax foo ko jëlee jàngin bi foo ko jële te kenn maasu ko foo ko jëlee jàngin bi fan la jóge alif laam mim fu mu jóge ah boo ñëwee ci taaha taaxaa nga ne taaxaa est-ce que du tiihi wala tuuhu nga ne taaxaa taaxaa bi foo ko jëlee yow mi nga xam ne alxuraan rek ngay référé wu kan moo wax ne taaxaa la kan la xaamim est-ce que du xiimim wala xuumum nga ne xaamim foo ko jëlee kan moo la wax xaamim la noo ko xamee léegi boo ñu tontoo ci loolu ñu avancé benn duñ la tontu beneen bi. yéen alcorane kessé ngén di référé wu ne wa d'accord alcorane rek lañuy référé wu booy julli noy def noy julle allahu akbar allahu akbar fu ne ci alcorane ak kula wax ni da nga yëkëti loxo yëkëti loxo bi fu ne ci alcorane allahu akbar baatu allahu akbar bi ku wax ni boy julli da nga allahu akbar ban aya la ban aya moy wax na ya ayyuhan nas iza qumtum ila salaa faqulu allahu akbar ban aya la et puis allah akbar bi yëkkati loxo bi génneel ñu ci alquran bi 114 surat bi 6236 vers 605 page 1025 lignes yi génnee ci allahu akbar yëkkati bi ak wax bi fan la am ci alquran bi fan la génnee ko ci benn saar ci benn verset rek wax ñu ko am na ah léegi amul léegi boo waxee allahu akbar loolu doo ko tontu même soo ko jéemoon a tontu léegi soo paree allahu akbar bi looy def ah da ngay jang fatiha jang fatiha ban aya la ban aya ci alquran moy wax soy julli jangal fatiha ban aya la mën ngeen genn aya alquran bi yëpp soko ko fan ngay fekk yéen ni su ngeen di julli na ngeen wax na ngeen jang fatiha fan la alquran leneen leen rek la wax faqra'u ma tayassara min jang leen lu ngeen mën jang legi lu ngeen mën jang lolu kan mo detaay la da ngay jang fatiha jang sa fatiha bi ngay jang ni yow legi foko jëlee du alxuraan rek ngay référé wu génnee ko ci alxuraan bi léegi génnee ko léegi soo paree faatiha looy looy jàng faatiha soo ko paree looy jàng saar léegi saar bi foo ko jële kan moo wax ne boo paree faatiha da ngay jàng saar ban aaya ko wax ban aaya la am na léegi ñu ne léegi ñu dem ba ci rukkoo bi léegi sooy julli da ngay rukkoo nga ne waaw léegi nooy rukkoo nga ne damay sëgg jël sama ñaari loxo teg ko ci óomi sëgg yàlla dana rek warka'u ma'a raaki'iin na ngeen ruku ànd rukukat léegi ruku mooy inclinaison ci làkk arab ruku am na sept façon bi nga def nii foo ko jëlee bi nga def nii foo ko jëlee lu bi ngay ruku ruku boot loxo yi ci ginnaaw lu bi ngay ruku ruku tàllal yi nii mel ni kuy naase wala nga def nii mel ni kuy waaj a naaw pourquoi bi nga ruku yi nga jël loxo yi teg ko sa oom yi loolu foo ko jële ban aaya la nit ñi dañuy caaxaan ñoom xam nañu li ñuy def lépp tappale mais des fois comme peut-être nii dajel amuñu niveau xëy na euh, mën leen mën leen yemale seen place wala war mën a wax ak ñoom ci xam-xam ñuy diggu ci li ñu def lépp affaire xel la te fii loo fi jaay jaay xel fekk fi ñuy wax xel olof day wax ne daaray lëg daaray lëg kenn du fa jaay gudd nopp parce que lëg yëpp gudd nopp lëg bu gàtt nopp amul. daara yi lëg ku fa bëgg a nekk da ngay gudd nopp comme affaire bi nag affaire xel la man duma ma dugg fi naan la ay aaya bi hadis bi nangam yow li nga wax ci laa sukkandiku da ngay julli nga ne waaw nooy ubbee sa julli léegi nga ne allahu akbar léegi justifié ma ko ci coran fii ba ginnaaw suba da ngay wax waaye doo ko justifié léegi mënoo ko justifié noppi yow li ngay def nii dèjà ci sunna nga ko jële même boo ko waxul ci sunna ngay puiser li ngay def lépp ci nga ko jëlee nga ne man alxuraan rek laay léegi boo ñëwee ci alxuraan fekk ay verset yoo xam ne yow jàngin bi ni ñu koy jàngee sunna la jógee saxaaba yi ñu ne nii la ko yonent bi jàngee da yonent dafa ñëw ne alif laam miim yonent dafa ñëw ne xaa miim ngay sonal nit ñi ne yow ci Coran rek ngay référé alxuraan bi kese ngay référé léegi alxuraan bi kan moo ko indi sa maam moo ko indi fan la jóge kan moo ñu ko jox kan moo ñu ko jox يونتي بي ليك القران بوب غاي ريفيرو امول فيرس بي واخ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فيرس بوب كان لاي واخال كوم يو تي القران غاي ريفيرو دما واتي تي يو القران بي تي يو يو بوب كان لا pour nga expliquer ko nit ñi expliquer action bobu naka la koy expliquer leg alcorane daf la obliger nga jël explication wa joju leg wa joju wax ñu kan la wax ñu kan la ak ndax expliqué na wala expliqué wul lu yaatu noonu la ñuy tuddee dañuy tuddee seen bopp alquran yoon muy les coraniques alors que ils sont anti coraniques duñu ay quran yoon waaw. kon li njëkk si ab jullit mu war a jàng mooy mu jàng li ñuy tuddee ak tawxiit muy wéetal borom bi subxanahu wa gis nga pas-pas dafa cher. yonent bi alayhi salaam ne amul lenn lu ñu peese ak laa ilaha illallah.